wa man ihtada bi haddihim ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mboolem kilifa yi teew ci jataay bi yépp ak njaboot yi ak taalib yi ak bokk yi ak wëlëre yépp Sëriñ Abdourahmane Mbacké mi ngi leen di nuyu ci turam ak ci turu njabootu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma gépp di jiital ci nuyoo bi nag cheikh Mouhamadul Bachir ibnu si Abdul Qadir mi fi teewal xalif général de des Mourides cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi yàlla yàggal lool te may ko wér. di ca teg nag monsieur Dame Diop mi nga xam ne monsieur le ministre Dame Diop mi nga xam ne moo fi teewal njiitul réew mi et président de la république. di leen xamal ne gannaaw bu ñu jëlee ñoom e njabootuk sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké gépp ndigal ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général de Mouride ak jëwriñam ji ko nekkal fii ci Daaru Xuddoos mu di Cheikh Ahmadul Mokhtar ci lañu leen wooye ci bis bii ngir fas yéene teg xer wi jëkk ci jàngukaayu xam-xam bi ñu war a taxawal fii ngir lan ngir yaatale ko jàngukaay yi fi nekkan yépp waaye ngir mantee waajale waajtaay wu mat sëkk ñi war a dem ca daara ju mag jee nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha sumb ngir àggale fa njàng mu mag mi nga xam ne moom lañ waajal ngir jàngukaay bu mag boobu di ko génn. dañ doon ngeen diggal duñ doon bàyyi rek ba kilifa yi toog te Cheikh wax ne gannaaw boo xamee ne jëlee nañ digal ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak ci. sëriñ Mouhamadul Mokhtar mi nga xam ne sëriñ Ahmadul Mokhtar mi nga xam ne tey mooy jëwriñam ji ko nekkal fii ci Daaru Xuddoos nee na ci léeg ñu leen wooye ci bis bii ngir fas yéene teg xeer bi jëkk ci jàngukaayu xam-xam bi ñu war a taxawal fii ngir yaatale ko jàngukaay yi fi nekkan waaye ngir mantee waajale waajtaay wu mat sëkk ñi war a dem ci daara ju mag jee Cheikh Mouhamadoul Mountakha sumb ngir àggale fa seenum njàng ndax école Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké yi yàlla dafa def ñu bokk ci école yi nga xam ne dañ leen a tànnan sélectionné leen ngir ñu war a harmoniser seen programme ak programme daara ju mag jooju di yi seex Ahmadou Bamba muy université bi seex Mouhamadul Mountakha war a taxawal dëkk école yi Daaru Xuddoos yi dañ leen a boole ci école yi ñu tànn sélectionné leen ngir ñu harmoniser seen programme ak programme ba ñuy jàngale ci daara ju mag jooju ngir bëgg képp koo xam ne bàyyi nga fii boo demee foofu war fa àggale sam njàng doo am benn jafe-jafe ci loolu waaye kuréel gi nga xam ne moom lañu dénk njàngale mi fii itam ci daara yi sëriñ Cheikh yi dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tànnan ñu bokk ci ñi saytu ak a tëral programme yi ñu war a doxal ci daara ju mag jooje mu di université ba kon ñu xam dégg ci loolu kon ne daara ji ñu war a taxawal fii doonul lu may bàngaas ci daara ju mag ja nga xam ne moom lañu war a taxawal fële ndax daara jooju lu jiitu ñu ko taxawal sëriñ bi dafa wax daara yi fi jotale na nekk nañ jàpp ne mooy daara yi nga xam ne ci la ñuy waajale ñi war a dem ci daara ju mag joojee daara yooyu nag daara yi daara xudus yi bokk ci moo taxan ñu harmoniser seen programme ak programme bañ defan foofa commission bi nga xam ne moo war a saytu loole itam ñañ ca tànn ñu boole ca ñi nga xam ne tey ñooy saytu daara ji Cheikh Abdourahmane nag wax ne kon e li muy jiital rek mooy fàttali nu kaddu yu bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Mouhamadoul Moustapha ngir mu nekk laltaay ngir ñu laltaayoo ko nekk itam loo xam ne dana soññi danañu soññi suñu postéef waaye itam dana yëkkati itam suñu yitte ba mu kawe kàddu yooyu moo di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Al Karim bi nga xamee ne Cheikhul Khadim wàcc na ab liggéey ba ñu andi ko fii ci këram gi ci Touba ki nga xam ne moo di rakkam ju baax ci Cheikh Mouhamadul Fadal dafa ànd ak Cheikh Mouhamadul Bachir ak mu Amadou Ndumbe Xabbaan ñu ñëw njaareem fekk fa Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ Maxtar Binta Lo ñoom juróom ñooñu ñu waxtaan ba juboo ci àgg ci Cheikh Mouhamadul Moustapha jaayante ak moom nañu jaayante woon ak Xaadimu Rasuul ba ñu defee loola Cheikh Moustapha ne ñokket jóg ne leen bisimilah ñu ànd dem ba ci néeg bi sëriñ bi wàcce ab liggéey mu ne leen jàmbaar jin àndalan laxasaayu ànd ak moom di liggéeyal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa fii ci barab bi fi la wàcce ab liggéey te moom de ba mu jëlee laxasaayam nga takk ko fa mu ko war a takk dafa jaayante woon ak boroomam ne liggéey bi muy liggéey rasulullahi laxasaay googee du ko tekki lu dul bis bi nga xam ne kii mu doon liggéeyal muy sunu borom daa yabal ndaw mu ñëw wàcc ko kii muy liggéeyee mu war a dem fekki ko fa ñuy añale ñu doon liggéey. waaw waaw waaw <coughs> léegi ngir. mu ne ba mu jaayantee ak moom daaw loolu la wax dane du tekki laxasaay gi lu dul bis bi nga xam ne ca lañ ko fekkee fi mu doon liggéeyee ne ko wàccal fii ngay liggéey ñëw wuy si fii ñu doon añale ñuy liggéey mu ne nag moom la mu war a dem defan wax na ko la mu waxan def na ko axdimu o ila duxoolil na daaril xaraari wal bu naawal mun mu ne ko nag dama bëgg nun ñii nu yeesal sunu jaayante ak moom seereel ko jataay bii mu wàcc ab liggéey waaye yéene waale ci ñi nga xam ne fekkew jataay bii waaye buñ ko fekke woon danañ def ni ñu def ba ci ñi nga xam ne juddoo ci sunuy doom ak sunuy sët jaayante gi nag nañ ko dëxëñ ci ñeenti yëf yi nga xam ne bu liggéey bi doonan ab néeg mooy kenn yi nga xam ne moo ko saytu te mooy lan xam-xam ndax moom dafa daan wax na bépp mbir mu mën a doon mu nekk bu fekkee ne xam-xam laltaayu ko ay borom xam-xam jiitewuñu ko nee na bu yeggee du jag isil aman illam yakun bil ilmi shabu oo xalal mu ne bu ñaareel ba mooy doole ju borom na ko def ci yoon yàlla mu ne kon bu jiitu bi nga xam ne mooy xam-xam te mooy yor lépp nan fasaale ci jaayante gi ne lépp loo xam ne liggéey bi laaj na ko ci xam-xam lu ci waaye yor na nga ko génne dëggale ko sag jaayante ngir sëriñ Touba bu ñaareel ba mooy alal ju borom nangoo def ci yoonu yàlla mu ne lépp loo xam ne liggéey bi laaj na ko itam ci alal nan dugal ci biir jaayante gi lépp ku yaakaar sëriñ bi loo ci yor ko génne dëggale ko jaayante te yàlla rek tax bu ñetteel ba mooy alal borom nangoo def ci yoonu yàlla moom itam lu liggéey bi laaj ca loola bu génne ko jotee nañ ko génne dëggale ko jaayante googu ba ca topp nag nee na bu làqu la boo xam ne xel sax léeg-léeg du ca dem waaye moo ne moom de bu fi ñett yii teewee te àndut ak ñoom teewug ñett yii mën naa yem ak seenu ñàkk pee teew mooy ay xalaat yu rafet yoo xam ne mooy seet nan la ñuy dajalee nan la ñuy dajalee maanaam yett yii lenn lu ci nekk ñu jëfandikoo ko fa mu ko war a fañ ko war a jëfandikoo ndax nee na xalaat yooyu bu amut doole ju tasaaroo lay doon la ñuy def tañaxu lay doon mu ne nag Cheikh Moustapha nag ne leen mboolem ñi yaakaar Serigne Touba kenn ku yàlla xañ yent yii amul ku amul xam-xamu diine am xam-xamu adduna te ñaar yépp la yoon wi soxla ku amut ñaar yooyu am alal ku amut alal itam am doole joo mën a def ci yoonu yàlla loolee nga xam ne nag moom la Cheikh Moustapha waxan fasaale ci jaayante gi ak lépp ngir bëgg koo doxal nag moo tax njabootuk Serigne Cheikh taxawal li nga xam ne moo di et fondation bii ngir mën a jaar ci yoon wi nu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké e, Serigne Cheikh Mouhamadoul Moustapha e, tegan ngir nu mën a sàmm ndono li ak liggéey bi nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyee kon sëriñ Abdourahmane di xamle ne kon fondation bi cadre la bu ñeenti jumtuwaay yooyu nga xam ne moom la Cheikh Moustapha waxan ne ñoom rekk ci lañ mën a sukkandikoo ngir sàmm ndono li waaye dundal li ñu fi sëriñ bi bàyyee waaye mu nekk tool boo xam ne moom mooy tool bi nga xam ne ci la ñuy liggéeyale sëriñ bi ci lan ci xam-xam ak lépp loo xam ne lu aju ci wàllu social ak uh, lu sunu dund ak sunu dundin aaja woo kon ñu xam ne kon fondation bi mooy loo xam ne bu ñu waree taxawal daara jume nii ci lañuy sukkandiku waaye buñ waree taxawal centre de santé wala lu demee ni ki poste de santé muy barab yu ñuy fajee ak a taxawoo ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe seen wér-gi-yaram ci fondation bi la ñuy sukkandikoo waaye bu ñu waree gas ab teen wala ñu war a bënn ab itam ci fondation bi la sukkandiku ba war a koo def ak lépp loo xam ne daal lu aju ci lu na yéwénal suñu mbiri diine ak suñu mbiri mbiru àdduna mu ne kon fondation bi dañoo bëgg mu dupp niñ ko duppee Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mu wuutu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké fa Serigne Cheikh Mbacké bu féete woon diine ji féete ko askan wi ci leneen taxaw ci lépp lu ñu mën nañ te jàkk ba tax na dañoo bëgg li seen yéene lépp lu ci waaye def mu mel ni ci loxol Serigne Cheikh nga ko teg lépp lu ci waaye def it fa Serigne Cheikh daan dugal lañ ko daan jox insha allahu fa lañ koy dugal loolu nag moo tax ñu tàllal loxo yépp lii nga xam ne moom la Serigne Bassirou ñaan wax ci taxawaay bii ci def kon wane na ne loolee sëriñ Mouhamadul Moustapha waxan kat taalibi yu bari dégg nañu ko ndax lii maam Cheikh ñoom njëkk a def mooy li yoon bi mooy li njëkk wax muy borom xam-xam yi jox seen contribution ci seen xam-xam dëggale ko seenu jaayante te yàlla rek tax ji nga kon architecte yi ak techniciens yi liggéey bii ñu def tàmbalee ko waaye la ci war a toppaat it muy alal gis ngeen ñii fi sëriñ Basiiru tudd ci ñoo xam ne ay bàyyi defal yàlla lañ ñoom itam dëggal nañ seenu jaayante Serigne Touba ci wàllu googu noonu itam nag lañu bëgg bu ñu demee ba liggéey bi ak itam ñu yàlla jox xeet yi yëpp moolkat yi maanaam carreleur yi ak mboolem borom xarale yooyu ba ci ferrailleurs yi kenn ku ci nekk na nga manifester sa yéene ak sa taxawaay ci liggéey bi ñu boole la ak techniciens yi yor liggéey bi ba ni nga daan demee toolu àllarba nga di ko ñëwee ci liggéey bii ci sa xam-xam boobee nga am ndax kat doole muy côté main d'œuvre ci yoonu murit la tàmbulee ci jumaay njaareem ba ci jumaay Touba jii di carrière bi ak raay bi lu ëpp cinquante pour cent ci main d'œuvre bi taalibe yi ñoo ko assuré woon ci seen doole loolee nag ñu ci sumb lu nekk lool la kon nag moolkat yeeg ferrailleur yeeg maçon yeeg ñëpp ñu ngi leen di invité comme nii ki nga xamee ne ni la architecte yi ak ingénieurs yi ñëwee joxe seen contribution ci wàllu xam-xam ci wàllu fondation bi kon lii mooy kàddu yi nga xam ne moo jóge ci sëriñ bi li koy jeexal rek mooy sant nag lool Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am na ko ci bis bii ak sas wi nga xam ne moom la leen moom la leen tobbil ñoom ñëpp te muy lim bu takk bu am solo bii nga xam ne moom la jox joxe mu jiitu ci biir liggéey bii waaye nag sant mbooleem ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci topp ñëpp tañ tudd leen te ñu joxe lii waaye sant mboolem bokk yi nga xam ne ñoo wuy si yëpp ndax xam nañ ni jamono jii ak ni mu xate kuñ woo ci lu mel nii nga wuy si ci mooy jox cër ki la woo ak jox dayoo